di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yeeg euh, défilé 4 avril ak ren gi dañu koy daal di dàq ba beneen l'armée bu senegal ne fa nu ko wéer mooy ci euh, fii kilifa yi joxe ndigal ci mooy tëndiku gi ñeel jàngoroy coronavirus yooyu mesure waral tuxal gi ba beneen euh, tuxal geneen di dox bi waa xap ak Pastef namoon ci ndakaaru ba tey jëlee préfet sàkku ci ñoom ak dakkal ndax dafa leen ne moom it fa mu ko wéer ci wàllu mesure barrière yi la ñu fàttale ne dox bi ñu ngi ko

Euh, lu jëm ci li nga xamante ni mooy wàllu Ousmane Sonko coow li boobaak léegi euh, Babacar Diop docteur Babacar Diop jiite kuréel gi di FDS am na ca xalaat mu ne coow dafa wane kanam dëgg gu njiitu réew mi Macky Sall euh, ci wàllu li nga xamante ni mooy jàppee gi fu ne ca la mu njort moom docteur Babacar Diop mooy Sénégal ci musiba la jëm leneen ci xibaar wàllu yoon la ak ñanu jàpp ca Touba Mbàkke ñu ñëwoon naan dañuy tawaaf ak yeneen juróom-benn yaa ngi ca kaso bi ku yoon di wër mandat dépôt ngir Biram Le yu Pastef jamono yu nu bàyyee soxna Fatima Mbeng ak Patricia ñoom ñu ngi ci contrôle judiciaire ci technique bi Abdoulaye jërë ngeen jëf ci ànd beek rajo Futur Média RFM ñu ngi ci Médina ci Ndakaaru rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi yegg ak pomb ba beneen ñeel euh, défilé 4 avril ci Sénégal l'armée géeni dogale ginnaaw bi nga xamante ni euh, dañ ko bëgg a wékku ci li di euh, diggali kër docteur ci moytu gi ñeel jàngoroy coronavirus. Pastef foog FRAPP France dégage na moon ñoom it ab dox tey préfet ne déet ndax da ko wéer moom it ci tere gi boobaak léegi rawatina lu ñeel Ndakaaru ak moo waral mu lankal leen.

ñi jiite kuréel gi ñu duppee le peuple ñawlu nan teeginte seeni ñooñ ngir xoqatal leen damboj bokk si gile kuréel di dem di jëli ay responsable yoo xam ne defuñu dara ñu leen di dem di jëli guddi ak di fanaan ci seeni buntu kër di xaar fajar jot pour ñu daal di leen jël yóbbu leen dig di leen bunduxataal ak di leen jaay doole ku mel ni le camarade Clédor Sène nga xam ni moom dafa bokk ci ñi nga xam ñoo sos kuréel gii nga xam ne mooy le peuple Assane Diouf Guy Marius Sagna moom président Macky Sall nag bi mu ñëwee ba léegi ci jaay doole la nekk mais jaay doole bi nag fi mu toll nii da koo gën a yokk fan yi pour bëgg a xoqatal Sénégalais yi xoqatal ab peuple nag mënut a nekk bu dee peuple bi am nañ fulla moom mii jàpp na ni Macky Sall di njiitu réew mi daa noot aw askanam. te toll nañ ci nag foo xam ne dañ naan trop c'est trop olof yi dañ lu ëpp tuur président Macky Sall nag fi mu toll nii commencé na ëppal loolu du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg li nu dese mooy résistance foofu lañ toll ñuy woo tous les sénégalais boor bu ñu mën a nekk wan ko ni réew mi moomu ko département yi nañu organiser wu région yi nañu organiser wu quartier yi nañu organiser wu maintenant samedi au niveau de Dakar ñu mën a ñëw ñëpp ñu ñëw taxaw won ko ni lii muy def jaay doole la bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñile yëglu ngir amal doxu ñaxtu gin war a àggee préfet bu Dakar niki àllarba ji am na yaakaar ne kilifa gi du ko gàntal jërëjëf euh, bay Assane euh, ci wàll woowu ba tey waa Pastef euh, ku ci mel ni Birame Souleye Diop Abass Fall naka noonu ñoom dañoo mujj def leen mandat dépôt maanaam jàllale ci kaso bi ginnaaw seen jaar ci kanamu procureur ak àttekat bi soxna Fatima Mbeng ci xibaar ak Patricia Gondoul ñoom ñu ngi contrôle judiciaire banañ leen waaye ñu ngi wéy di leen may gët ci wàllu yoon parti Pastef nag du dara bettu ko ca lépp lu jëm ci wàllu ay xoxalaate rek la du leneen kenn ci seen i avocat ñoom Pastef Maître Abdoulaye Tal. dara dara bett ñu fi li nga xam ne moo am en tant que Pastef dañuy continuer di wax ne ñoom jàpp gi leen jàpp jaarul yoon euh, détention arbitraire la enlèvement la tentative la maanaam di jéem a patal wala xuuxal wala di tiital ay militant Pastef te loolu di jàll te loolu dina tax toujours lay gën a mobiliser li nga xam ne ñooy militants yi daleen di gën a daleen gën a yokk doole gën a jox détermination jàmm ñi nga xam ni nekkuñu fi lu dul di bot di ak ak yelleefu doomu aadama yi di tiitalaate di jaay doole comploté te loolu lañ nekk di ko xeex te Sénégal jëlaat xar kanamam démocratie jël xar kanamam ci état de droit loolu daal ci lañ nekk di ko xeex te incha allah njëkk li ñuy def daal mooy ñu waxtaan suñu biir pour xool ñii naka lañ nekk fi foofu lu seen place ak def ba nga xam ne tamit parti Pastef nan la gën yëkkati ko waat parce que lii def nii dañuy jéem xool di jéem a tiital association de malfaiteurs toppee leen diffusion d'écrits euh, ñaar ñu njëkk ñi muy ab suñu suñu Abbas Fall ak ak Birame de malfaiteurs ak diffusion d'écrits contre les bonnes mœurs ak menace de violence et voies leen ay complicité maanaam dañ leen wax ne dañoo jàppale ñaar ñooñu ma lay wax dañ leen a jàppale ci li nga xam ne moom lañ toppee te loolu booy xool daanaka wax ji yàqu la wax wax ku daanu si sareet la je pense que liñ leen toppee daf daf leen a bett ñoom ñëpp loolu moo tax ñoom amuñu sa réponse bu ñu ciy joxe lu dul xamuñu ne xew yëguñu ne xew et c'est ça la vérité nañu ñu delluwaat sama xel te jéem a xam ne Sénégal ñëpp a ko bokk mu nekkoon euh, maître Abdoulaye Tall euh, yore kàddu Pastef ci jokkoom ak Pape Balla Guèye euh, docteur Babacar Diop lu jëm ci mbiru Ousmane Sonko moom dafa gis ne kii di président Sall le kanam gën yi muureeku maanaam xar kanam dëgg gi gis nañu ko ci gis-gisab moom président bu force démocratique sénégalais Babacar Diop. te it lu jëm ci wàllu fitna gi ku moywul mu ne fa muy mujj du neex kenn maanaam daanaka lu lu yéeme la luy taal réew mi la euh, Africa Jom Center ñoom it yëglu mbootaay gi aluntine Tine moo ko taxawal moom ak ay ñoñom ñoom rafetlu wuñu benn loon li xew fan yi jamono yi jàppee gi fu ne ci wàllu politicien ak ñu bokk ci société civile gi ñoom ñooñee di waa Africa Jom Center euh, di ko ñaawlu ak it ñi nga xamante ni ñooy woote fitna woote fitna ci wàllu wu mu mën a bawoo ak fu ko mën a wéer nag euh, du lu rafet du lu baax ci mim réew wàllu xibaar ak yoon ba tey ak lu jëm ci ñene woon Tuubaa ne dañuy tawaafi euh, ñi nga xamante ni ñooy daayira bi ñu dénk jumaa ju tedd jooju bu seexul Cheikhul Khadim dakkal seen pexe yooye daanaka may leen fu ñu tawaafe waaye yoon ci boppam danañ a toog loxo ndax doxalin wi ci wàllu ñàkk wor ma jëmee ci bërëb bu tedd ak yeneen juróom-benn ci ñoom ñu ngi ci kaso bi juróom-ñaareel ba ñu ngi koy wër jamono yi RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. liggéeykat yu agence africaine d'information PANAF euh, presse Afrique ñooy arto dem ci toogaanub ñaxtu ci kanamu dalab euh, kër gi siège bi ci ndakaaru li ko waral di ab diire ngi yàgg lool fanweer ak juróom-ñett ci weer yu ñu warloo ak ñoom ci payoor liggéeykat yu PANAF presse Afrique euh, ñoom yónnee nañ ci sax bataaxal ñu ne njiit réew président Macky Sall bataaxal bu nu ko yëgal seen nekkin wu métti woowee mbuur askan wala leen jaaxal mooy dakkal gunu dakkalandi jamono yi liggéey Promoville dafa taxaw boobaak léegi euh, ca xamul lu ko waral responsable projet bi ñoom ne yeexte gi mu ngi tukkee ci soppite ñeel ministère bi ci wàllu infrastructure diggé nañu euh, ci lu yàggatul ak tàmbaliwaat ñeel liggéey bi Abdourahmane Diallo ci Mbour. ay oto yu taxaw ay jalu suuf ci yoon yu bari yu nekk ci Mbour liggéeyu Promoville yi ay weer a ngi nii dafa taxaw Ousmane Sow kenn la ci kuy saytu liggéey yooyu ci Mbour. ñaari anam ñu ko taxaw tuuti taxaw mooy benn bi mooy nawet bi parce que nawet bi liggéey c'était pas lu yomb wante ñaareel bi aussi mooy boo xoolee fan yii la passé dafa am ay changement au niveau de l' état du Sénégal mooy remaniement bu fi amoon donc il fallait que ñu changé yenn documents yu bëri quoi permettre entreprise bi mu a jot xaalisam waaye loolu yëpp maintenant réglé na. liggéey yooyu nag dafa yéex ci jamono ji mu doon mbir mi nga xam ne luy gàllankoor la ci askan wi waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yor oto yi jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel teewul ñi fi toogal Promoville di xamle ni liggéey ci biir dëkk yomb. a yoo xam il faut nga drainer ndox mi de telle sorte que boo paree du dellu yi. nga xamante moom lañ def deuxième phase si mbedd fu mu jaar donc euh, études yooyu nga xamante ne dafa war nag il faut ñu koy jéem a respecté pour ñu mun ñu permettre tey bu ëllëgee bu ñu livré tali yi du nekk tali yoo xamante day leer population mais tali yi nga xamante tey jëriñ population bi. ñu toogal Promovilles ci Mbour di dalal xelu askan wi di leen xamal ni donte sax liggéey yi am na ay yéexteef yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci teewul entreprise yi fexe ba pare li ñu war a def ci app yi leen jox RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ñu waxtaanee njàngamu mu kawe mi ak ñenn ci étudiants yu am bag bees ren ca doon yëg lu demb ci seen ñàkk ak orienté ak ñaawlu gi donte ñu ne jëwriñ ji nu dénk njàng mi digg woon na lu ni moom jëwriñ ji ci boppam indi ci leeral Cheikh Oumar Anne ne euh, ñoom bu ñuy mere ñu mere seen bopp ñoo ko deful ci anam yo kon jàppul ne mënees na ko def ci jamono wax na ci ñi nga xamante ni ñoo am bac ci wàllu kon bac ñoom mu ne ay waxtaan ubbiku na ak kilifa yu université Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul ngir kon seen ak orienté foofee leerali Abdou Diouf Diagne. orienté nañ ñëpp te orientation yi jeex na. jëwriñ ji ñu dénk njàng mu kawe mi di xam ne ni du dellu benn yoon gannaaw ndax tëkku yi nga xam ne ndongo yi ñu orienté wut ñoo koy amal la képp koo xam ne orienté wul la rek la ñu woon ca yow ca ndorteel la da nga deful la. ku ci bokkul buñ la orienté wul amul dara loo ci wax mais bokkoo ci orienté wuñ la. nga yeewu ne léegi comme nee nañu dañuy orienté ñëpp ñoom def nañ li ñu doon def ba pare naa taxaw ne man kenn orienté ma jàppale mbaa nga dem làkkatu ci ay activiste <laughs> activiste enseignement supérieur activiste amul fa lu mu fay def parce que pour nga wax loolu da xam li ngay def yeewu rek ne man damay yeewu rek ci wax non mënul demee ba ne dañuy wane loolu mooy wóolu dañ suñu bopp quand école privée yi nga xam ne nag dañuy def ay ay pexe ngir bëgg état bu Sénégal daal di fay yóbbu ay ndongo jëwriñ ji di leen xamal ne xel xalaatu ko ñu ñëw di dañuy indi revendication man jàppee wu ma yi pour ñu orienter leen ci école yi ci université la parce que damay gis ne ñoom ñëpp dañuy wax ne way université yi fees nañu yóbbu ci école privée yi non orientation école privée état bi di fa yóbbu nit jeex na amatul ñi nga xam ne nag ba nekk kenn orienté leen benn buntu képp jiite université Cheikh Ahmadou Bamba bu Touba RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. jërëjëf sëñ du ñu des ak njàng mi ak euh, élèves yu lycée Bonaw département bu Bounkiling ñoom ñoo yëglu ak mer ndax du courant du jumtukaayu informatique euh, ci ñoom ci wàllu njàng mi rax ci dolli lycée ba naqaree dem lool. leeral Max ak Luc Compagnie ci lycée bi amé fukk ak ñaari classe pédagogique genn wala gi yépp abri provisoire la Sadibou diata proviseur lycée Bona mi ni ñi gën xamal l'école bi lycée bi dafa am euh, fukk ak ñaar classe waye ci bâtiment yi juróom ben lañ tabax nek ay salle yu tabax yu baax yeneen yi moy lu ñu woyé ci français ay abri provisoire ak ki nga xam ne proviseur bi censeur bi ak surveillant fu ñu nekk loolu tam beneen néegu ñax la donc lolu ay jafe-jafe la ñu am fini ci Bona lu weesu jafe-jafe boobee lycée bi mi ngi jànkonteel ak ñàkk courant it nekk ci bërëb bu làkku di ñaawlu proviseur bi Sadibou Diatta. boo ci dollee tamit courant bi nga xam ne depuis création lycée bi vers 2013 ba léegi amagul courant ñun daal ñu ngi def avec les de bord amuñu courant amuñu yoon bu baax sax buy jëmale ba ci lycée bi donc yooyu si ay jafe-jafe la boo xalaatee ni que am nañu ay élèves yu def série scientifique te série scientifique dafa laaj euh, matériel dafa laaj ay microscope dafa laaj ay euh, analyser ay ay test ay euh, yenn xeetu enseignement yu ñu wara def donc bo xalaati ni loolu élèves won war ko def te amuñ ko euh, dalee metti ci xol. le suru si ci ñàkk courant bobu jëfëndiko xarale yi bees ak été amal pratique ci matière scientifique yi doon na lu ñu mënul a ci lycée bi nga xamné bari na ay résultats yu positif yu muy amee. yeen lycée suñu naataango yi amnañ courant amnañ bibliothèque amnañ matériel informatique ñun suñu élèves yi amuñ loolu xamuñu lan mooy suuri Touba gisuñ ko fii amuñu microscope amuñu yenn xeetu jumtuwaay yu ñu jàngalee science donc dafa métti situation boobu noonu. Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. jërëjëf Max Cric Company ñu dem ba Foundiougne foofee xalaat ak tëralin jëm ci wàllu njàng meek tolluwaay la foofe ak gune yeeg leen di desloo ci l'école bi jàngaloo leen ci anam yi gën muy euh, tëralin ak xalaat bu ñu duppee grenier scolaire gis nañ nag ne am na ay njeexite yu baax ci wàllu njàngale mi euh, ñeel département ba euh, Foundiougne diwaanu euh, Fatick juróom fukk ci cantine yu nu fa sanc ci juróom benn ci at euh, ci euh, mboolem l'école yi fa moo waral ARD agence régionale développement ak ministère éducation noppi sax wéy di gunge boobépp xalaat Aminata yi ay cantine scolaire fii mu ne installé nañu leen ci lu tolloog daanaka juróom fukki village yu nekkee ci département bu Foundiougne concept bobé. nak ñuy woowee grenier scolaire ñi ngi ko tout 2014 ba léegi liñ ci namoon nag mooy gën a ñoŋal conditions yi nga xam ne la élèves di jàngee ba am résultat yu baax tey nak nag ñuy wax ni loolu ñu ci am nañ ko buñ sukkandikoo ci Mamadou Racine Fall mom inspecteur de l'éducation la ci inspection de l'éducation et de la formation bi nekkee ci Foundiougne. Si l'enfant n'est pas en bonne santé. élève bi li tax mu am wér yaram mooy muy lekk bu tax nag mu gën a concentré wu ci jàngam loolu la ñu xalaat ba tax ñu tabax taxawal grenier scolaire yi day tax résultat yi gën a baax moom nag muy xamle ni cantine yooyu nag li koy doxal communauté yi ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo ko fay dugal PAM dafa dem école amatuñ cantine ñu wóolu population yi dem wax ak ñom présenter modèle biñ ñu bëgg ñuy collecté ci tool yi bu nawet wàccee ku ne lo bo mëna yobbu kilo ci école bi yu ñaari kilo kilo nga yobbu waye nak programme bi ñi wowe PRODER agence régionale de développement bu Fatick diko ko doxal ñoom fi mu ne dañu ñew ngir jàppale concept grenier scolaire bu bulé ministère de l'éducation nationale ne ñom itam dañu gungi IEF bu Foundiougne ci mbir mu ni mel El Hadj mom nak mom moom mbiri cantine scolaire yi ci ministère de l'éducation nationale école boo gis tey ci Sénégal muy école élémentaire ministère dugal na fa xaalis pour fonctionnement cantine li ñuy wax kay mooy na day néew moo tax ñi nga xamante ne ni dañuy def ay initiative pour dolli loolu ñooñu dañuy ñëwaat nag léegi seet nu ñu leen di jëmbale. modèle bu ni nag ñu ni war nañ koo yaatal ba mu dem ci IEF yi di Diofior Fatick ak itam Gossas ab lël boo xam ne sax dañ ci doon weccante xalaat ci mbir mu ni doon nañ ko amal ca Tidiane Diagne euh, laata Ndakaaru di ko nangu euh, Kolda googee jot nañu euh, seen dose yi vaccin ñeenti junneeg juróom-ñetti téeméer yu fa yegg si yu fa gouverneur diwaan ga teeru moom monsieur Ousmane Kane leerali Abdoulaye Diallo. bi la diwaanu Kolda dalal vaccin yi ñu jagleel wàllu xeex mbas mi mu doon ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaari dose vaccin Ousmane Kane di gouverneur diwaanu Kolda moo daal di présider bi la xew-xew. waaw ñu ngi am mbégte tey euh, ñu di gàttandu vaccin yi nga xamante ni dañ ko jagleel région Kolda muy 4802 vaccin yoo xamante ni euh, mooy wàllu Kolda en tout cas si première dotation. comme niñ ko amalee ci yeneen diwaan yi ci biir réew mi fii ci Kolda waa 4800 vaccins. vaccins. vaccin 4802 vaccins nous jagleel dans le public comme dans le privé Nous verrons après les personnes âgées de 60 ans et plus avec ou sans comorbidité daanaka lépp yemb na ngir ñàkk wi mën a door ci alxames bi fii ci diwaanu Kolda. d'abord à travers une visioconférence que nous avons organisée avec monsieur le ministre de la santé de l'action sociale. fàttali ne li ko dalee ñaareelu fan ci weeru avril ci at bi weesu maanaam 2020 ba fi ñu toll ni tembe diwaanu Kolda jot na dalal lu tollook ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent aji wopp yi amee jàngoro yi coronavirus RFM Kolda Abdoulaye Diallo. RFM Sport. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu maa ngi lay fay El Hadj di ko door rek wàllu football ak Ligue des champions bu ñu jagleel club africain yi niki démb nag la doon amal lii di deuxième journée bi Teungueth FC ma nga woon sa diwaanu Thiès stade Lat Dior doon fa jongante ak Zamalek bu Égypte ndam demul ndam dikul kenn dugal itam moromam dara gannaaw ba match bi jeexee na kii di Youssouf Dabo bi nga xamante ni moom mooy tàggat ñii di waa Teungueth FC am na ay kàddu yu mu yëkkati jàpp na n que équipe ba mënoon na cee ñu déglu ko ci atal ci micro Cheikh Diop. waaw match la boo xamante ni am nañu ay opportunité tey pour euh, dugal ay but gagner match bi malheureusement euh, assuré wuñ ko comme il fallait mais ci dernière minute aussi mënoon na ko faire parce que am nañu une réelle occasion ñoom boo xamante ni mënoon na leen permettre aussi ñu gagner match bi ci dernière minute mais tey xale yi par rapport ak euh, surtout conditions climatiques bi metti woon na trop metti woon na si ñaari équipe yi ba tax na dafay jafe pour que yenn effort yi surtout. Euh, effort intense yi ñu leen di demandé par rapport ak match bi pour répéter ko sur la durée dafay compliqué ay nit kese lañu yéen ñi doon seetaan sax fi ngeen toogoon amoon ngeen fa euh, kii ndax naaj bi ndax tàngaay bi waxuma la ak ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suuf di daw mais bon loolu yëpp ay jàngat la parce que ñun ñëpp xam nañ ni tey jii li mooy suñu première expérience par rapport ak compétition bi et comme li may wax point yëpp am importance et je sais que voilà nous avons à partir du moment où vous nañ une compétition il faut que nous carrément parce que compétition non si euh, nous ñeneen ñi compétition, nous wut sa bopp ñun nag Nous nous suñu bopp li avons ñi di maintenant nous ko am duñ ko nous le dira mais lu sommes est am rek ay jàngat bu pour euh, club pour aussi joueurs pour nous, euh, nous nga aussi par rapport à ce niveau les plus de ces il y a une expérience par rapport à ce que nous yoonu ëllëg daal. waaw jàppale ni yoonu ëllëg googule moo di juróomi fan ci weeru mars jàpp juróom-benn fan ba tey ci weeru mars eh, ci troisième journée bi Teungueth FC dina dalal fii eh, eh, bu Alger jàppale nag équipe googule sax di équipe algérie ñi ki démb dafa daal di match nul diggam ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Espérance de Tunis jamono gi sax Espérance de Tunis moom moo féetee ci place bu njëkk bi daal di am ñeenti poñ Teungueth FC moom moo féetee ci place mujj bi daal am ñaari euh, poñ ñu daal di waxtaane wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci Europe li de finale Ligue des champions jàppale ni ñu ko doon amal lii di euh, match aller euh, ca Bucarest ca Roumanie foofu la ko doon amal diggante Atlético Madrid ak Chelsea la ko waral nag moo di mbas bi ak yenn ci ay yi nga xam te ne jël nañ ko Atlético Madrid daal di recevoir foofule waa Chelsea Chelsea nag moo leen mujj daan benn bal ci dara seen but nag ñu ko dugal Eh, Chelsea gën équipe gu ràññeeku lool wane boppam di Bayern Munich di équipe champion en titre di Champion euh, di champion d'Europe ñom nak demba dañu fekk wa Lazio bu Rome sen dëkk dal leen daan ñenti ball ci ben la ci dess ci walu jogante dañ ko fas kon boo ni ki di huitième de finale aller yi euh, ci Allemagne ñi euh, ñi nga xamné do Borussia Mönchengladbach di club Allemagne ñom ñoy dal di recevoir ñi di Manchester City Atalanta bu Bergamo mom ak Real Madrid lay dal doon ñaari match yoy la incha allah ko dal di door ci bu 20h jotté fat nak Karim Benzema moom seen digg ak Atalanta du ko daal di fekkee ndax gaañu gaañu bi nga xam te ne gi moo ko daal di tëral ñaari match ñu jotalim incha allah ko mën a déglu en direct tey ci ngoon ci rajo Futurs Médias Alla Diassane. incha allah sëñ Cheikh jërëjëf. maa leen di nuyu mbokk yi artist woykat bi di euh, Djiby ñu gën ko xam ci euh, turu euh, Djeba daal dina génne fan yi weesu benn single bu bees tuddee ko guy single boobu nag mu ci wax waxu la Aminata Ba waxtaan ci ak moom. man keroog ba eh, eh, eh, xam ni xamee ci Djeba daal di bégluwaat xolu askan wi ci weeru février bi mu génne ab single du pekk guy. love you. nekk woy bu mu jagleel ñiy bëggante. son yu may génne dama bëgg. bu génnee rek tout temps nit ñi dinañ interroger wu vraiment ci titre bi. et tey boo nee guy après les gens mën nañu faire allusion à baobab guy tamit mën na signifier lu sedd benn mbëggeel boo xamante ne nit ki dafa seral sa xol ba sa xol bi sedd guy guy. woy bi daal di am diversité musicale nekk jumtuwaay ci gone Thiès bi ngir daal di tasaare musique am. inspiration bi man ça vient naturellement man dama nekk ni koo xamante ne tout temps dama bëgg di leneen loo xamante ne beneen variété boo xamante ne tey être mën naa ni mu ngi am Sénégal mais bariwul nit ñi koy exploité et je l'ai fait donc euh, def naa ci son bi boo déggee son bi buy premier partie da nga naan est-ce que du son wu arène bi son bi demaat ba ci biir mu amaat benn partie mbalax les les deux tey mën nañu def suñu musique ñu essayé ko jaay ko au niveau international. ak xarale yu yees yi jàngoro yi Covid 19 laalul bu baax liggéeyam bi. xamoon vraiment son bi mu ngi dem parce que tey boo xoolee son bi en une semaine am na un million de vues à cause de pandémie bi xam nga pour déplacer wu c'est tout un problème donc on s'est dit que nañ ko bàyyi noonu rek parce que ñun ñëpp dañoo am des les les réseaux sociaux ginnaaw juróom-ñetti single mu jot a génni Jeeba di waajal album balaa jeexital at bi moom nag bokk na ci ay mbibatam daal di doon woykat bu ñuy ràññi ci àdduna bi yëpp. Luke koy wax nak mom mu ngi euh, way di euh, magal li Black History Month mu di euh, weer bo xamantene ne dañ ko jël ngir magal ci jaar nit ku États-Unis alarba di nak centre bi dina projeté ben documentaire bo xamantene mu ngi soxal film mandabi bu Ousman. Ben Ousmane projection bi buñ ko défé ba nopi amal app débat and ci ak Boubacar Boris Diop bindakat bi waye itam sociologue bi di euh, Marie-Angélique Savané mu nara a nak euh, ap rencontre bo xamantene ci internet lañ koy jaarale liko dalé 15 h ci ngoon fii dinañu yem ci mbokk yi ci sen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje lëkk comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen et raktak bi yoyi Opalia. ak savon de Marseille créole.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 xàll yoon wi ñu war a jaar ba dindi immunité parlementaire am ay àndandoom ak i farandoom yi ñu tëye woon ci yoon yéenekaay bi nee nañu yoon pareegul ci ñoom ba léegi ne Souley Biram Diop ak Abbas Fall mandat dépôt nañu leen ba ca kaso ba fa ñu fanaan démb jabari Souley Biram Diop di Patricia Mariam Ngaldou moom bàyyi nañu ko mu dem waaye ci contrôle judiciaire ca la nekk l'observateur ne ko du moom moom la ak Fatima Mbeng Dayiru Thiam ak Bawar président Macky Sall nee na wax joojee nañu ko ca génne keccet ko ci ba mu set wecc ndax moom am na yeneen yitte am na leneen lu gën doon farata lu dul taxaw naan mi ngi compoloté ci yu ñàkk fayda yi Le Quotidien nañu Macky Sall mi ngi moytu coowal massage yi waaye Ousmane Sonko moom génnewu ko ci nee na Macky Sall munoo convaincre benn doomu Sénégal te ñëpp xam nañu ne benn compétence rek nga am mu di di compolo say adversaire politique ngir sànk leen Le Témoin nañu compolo gi waa parti Pastef di wax ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba di ca taqal Macky Sall Macky Sall génnee na ca boppam waaye Ousmane Sonko mën ko ciy gën di dugal ne démb lañu ko dégg moom Macky ci waxtaan wu mu doon def ak rajo tubaab bii di RFI rajo France Internationale mu ne moom am na yeneen i yitte yu gën a doon farata leneen lu mu mën a lu bokkut ak di kompaloo ci ay caaxaan waaye Ousmane Sonko moom xaati goñ na ne ci li ñu koy jiñ ak di ko ko waxal ci réew mi boobee ba léegi loxob Macky Sall ci te bëgg koo sànq ci wàllu politique rek moo tax mu koy def suur soit nañu kurpañ tàmbali na tàkk ci diggante Macky ak Ousmane Sonko réew yu bari ñu xëy ndool xëy nañu baaxee fa yëf ya toll bokk ci Sud Quotidien mi ñu wax ne door nañu démb campagne bi jëm ci ñàkk nit ñi ngir aar leen ci coronavirus bi Sud bindal ñu ne Sinopharm ubbi na yoon wi Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé moom it wane na yoon wi jiitu na président Macky Sall ci ñàkku gi ngir aaru ci coronavirus gi Les Échos bind ci xëtam mu njëkk ne Diouf Sarr sóobu na ci yëf yi Macky Sall moom ma ngay day naagal ñàkku gi ñu tàmbali démb ci réew mi ngir aar askan wi ci mbas mi enquête yéene kay yaakaar luy upp la ko tuddee ku lakk mburu tuddub dëkk coow li jëm ci orientation bachelier yu 2020 2020 ministre de l'enseignement supérieur di Cheikh Omar Anne xëy na di leeral li ci am Vox Populi nañu cib janoo bu mu doon séq ak taskatu démb fa la leeralee ca xew dëgg-dëgg nee na ci 72 d'orientation yi ñu jot ci plateforme bu Campusen yépp traité nañu leen mu ne am na ci ñaar fukki demande ak juróom-ñaar yoo xam ne dañoo forkoloo ndax seeni borom dañoo yeex fay seeni frais d'inscription am na it yeneen ñaar fukki bachelier ak ñeent yoo xam ne ñoo dem ba ca biir bàyyil seen bopp Cheikh Omar Anne bu weesoo juróomi la ñu dem jàngee amee baccalauréat arabe ñoo ngi toll ci junni ak juróom-ñaar fukk ak ñeent te ñoo ngi liggéey bu baax a baax ci seeni dossier ngir seet nu ñu leen orienté mu ne fañ leen bëgg a orienté moo di ca université Cheikh Ahmadou Bamba ba ca Touba ñi fi demoon Touba bu yàggul bëggoon a tawaaf ca jumay Touba ja l'observateur nee nañu ñooñe ñi leen jiite ñu bari ci ñoom ca kaso bu njaareem fa la ñu waa ji leen rungoon yóbbu ñu naan ko jabang moom ak ñeent ci ay taalibeem démb ci lañ leen mandat dépôt ba jël leen yóbbu ki ñu mooy seen wasila ñoom ñëpp l'observateur nee nañu moom ñi ngi koy wër wër gu mitti jamono ji ba jël ab mandat d'arrêt gàll ci ndoddam noo nooxoo rey la dëjël la saraxal la ba noppi ñëw di la jaale loole moom la waa ji di Mouhamadou Cissé def ndaw sii di Soukeyna Diallo ubbi l'observateur Mouhamadou Cissé daf doon bëggante ak su Soukeyna Diallo ba ëmbal ko su Soukeyna Diallo l'observateur nañu jenn jigéen la ju yore boutique buy jaay ay bagages yi jigéen waa ji di Mouhamadou Cissé teg ko dil ànd ak beneen waay bu ñu naan Youssouf Camara ñu dem dajji boutique gu ndaw si jël fa valeuru ñaari million bu manqué ñeent fukki junni maanaam un million huit cent mille l'observateur nañu li ci gën a moo moom Mouhamadou Cissé bi mu defee li muy def ba noppi ndaw si Soukaina Diallo gendarmerie ngir mu porter ji plainte comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf Mamadou Mohamed ñu ngi leen di gërëm yéen it mbokk yi xibaar yeeg RFM 4 avril ren du am défilé loolu l'armée benn dogalee ginnaaw bi nga xamante ni euh, ñu ngi wéy di wékku rek ci ay mesures barrières euh, di ay euh, dogal ngir moytu gi ñeel jàngoroy coronavirus. préfet Dakar it loolu la tontu waa Pastef ak Frapp France dégage yi namoon ab dox tey jile ci wàllu yooyu mesure waral tere gi ñeel seen marche boobee ñu namoon ñoom yaay yooyu kuréel waroon jógee Colobane wutali rond point RTS radio télévision bu Sénégal bu samedi it am na mbootaay waaye geneen gu fas yéene amal ab dox muy coalition citoyenne le peuple la ñu rafetluwul ñu ne mooy jàppee gi fu ne euh, ci ay acteurs muy politique gi ci wàllu société civile gi loolee it euh, kii di Babacar Diop docteur Babacar Diop bu FDS rafetlu ko benn yoon googu tolluwaay ak mbir Ousmane Sonko moom tiit na sax réew mi euh, fa muy mujj du baax leneen ci xibaar ñeel na wàllu Touba ña fa demoon ngir ab tawaaf ñu teg leen loxo juróom-benn ya ñu nga ca kaso ba ca njaareem ni ko Mouhamad waxee ci yéenekaay yi mandat dépôt ñeel keneen koo xamante ni ab mandat d'arrêt ñu ngi koy wër ci moomee mbir ñeneen ñu nu teg loxo biram Souleye Diop la ak Abass Fall bu Pastef jamono yu nu bàyyee soxna si di Fatima Mbeng ak Patricia Ngandoul waaye ñoom ñaari soxna yi dañu leen def contrôle judiciaire Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi soxna Yacine Pouy ci euh, wàllu digital gi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi saa su ne di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen ci kanam tuuti pencoo geeg RFM incha allah dinañ ci ànd ak Mbalou Dia Thiam bu suite saas ak professeur Daouda Ndiaye.